yokku tax nag ba fukki nit ñàkk ci seen bakkan ak ay dégâts matériels yu bëri nag njiit réew mi Macky Sall jël na dogal démb ca conseil des ministres ngir rek digal ministre yi ñu ubbi l'enquête ngir nag xam fan la dëkk féetee mu di nag loo xamante ne ak acteur politique yi ñoom ñoo ngi koy rafetlu bu baax. fow l'enquête am bon nag ñan ñooy enquête ak naka la ñuy enquêter dañuy laaj ñiy enquête commission enquête bi ñuy teg mu doon enquête bu autonome bu indépendant. bu kenn dul wax jaaral nii wala jaar nii nañu enquête ci seen aqulaay taala ay sénégalais cent quatorze deewaat fukk ak ñeent warul demee comme bee passé sénégalais aussi mënuñu fi nekk di dee comme ay weñ comme si la. njiit réew mi Macky tamit jox na ndaje askan wi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru soin bi ñu dëgmal liñ ci war a waxtaanee nag yenn acteurs politiques yi jàpp ne mbirum ñetteelu mandat la nar a loolu mooy point essentiel bi troisième candidature. duñ ko nangul kenn nangu nanguluñ koon Abdoulaye Wade moom duñ ko ko nangul. ñenn ñi ñoom bëgg rek njiit réew mu Macky Sall puusaat jongante présidentielle yi. fa atum 2026. fekk dëkk bi euh, nekk ak dal su ko defee nag président ci annonce mu annoncé ko ñu boole nag ak yeneen mesures yoo xamante ne bi jàppale jàpp surtout jàppale xale yi xool xeex ak euh, ñàkk gi xeex surtout aussi ak ñàkk liggéeyu xale yi. mais organiser ay élection moom ci condition yi ci février 2024 moo janowoom ak askan wi des lu ëpp fukki fan mu di nag ndaje boo xamante ne ñëpp ñoo ko doon xaar lu ci munti doon ñoo ngi xaarandi rek ne lu mu war a waxtaanee ak yéeneem wax ak askan wi mun a rek gën a ñoŋal lii di climat social bi ak politique bi loolu nekk li nga xamante ne moo di bëgg-bëgg bu askanu lëmm